waa Bambey gi yëpp surtout ak mouvement bi poñ bi ci topp mooy li nga xamante ne bii rote na ci monsieur le maire ci wàllam éclairage public bi maanaam leeraay bi ñuy leeral Bambey bi ñu loolu bëgg na ci indi ay leer ay leeral li ci topp moom mooy gën a ñaaxaat waa Bambey gën a ñaaxaat surtout mouvement bi ci li nga xamante ni bii liggéey boo xam ne dañ koy sumb te ñëwagul waaw kon bu loolu weesoo may jox kàddu gi Euh, Cheikh Ndong bi le président environnement mu wax ci ay kàddu ñu daw di jox monsieur le président mu xóotal waxtan wi surtout ci point yi ñu lim Cheikh vous avez la parole. à waa Bambey salaamaaleykum wa mouvement ànd taxaw Bambay. man la Cheikh Ndong di président commission environnement bu mouvement ànd taxaw Bambay. Euh, maa ngi nuyu ñëpp waa Bambey yëpp di leen jaay jaajëfal ci kóolute bi ngeen am ci ñun ci suñu mouvement bi euh, di leen sant di leen gërëm di sant aussi waaw mouvement bi di sant ñëpp ñu ci jàpp ci liggéey bi euh, tey nag ma feggoo ak suma naataango muy le président Oustaz njaay Amadou ak Jibi Sène Ndiaye ñu amoon ay leeral yu ñu bëggoon a indi par rapport ak liggéey yi ñu fi doon sumb ci fan yi ci ginnaw ak liggey yi ñëwagul ak euh, le maire Gana Mbaye kàddu yi mu addu fan yi passé jëmele ko ci liggey bobu nga xamantene bi mom lañ fi initier won ñuy jox euh, le président Oustaz kaddu gi mu andi ay leeral ci wow assalamu alaykum euh, mbokki Bambey alaykum mbokki Bambey gi yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant euh, di nuyu le mouvement ànd taxaw Bambey maa ngi nuyu tous les membres yi nga xam ne tey ñu ngi ci mouvement ànd taxawu Bambey euh, ñu bokk liggéey bi ñun ñëpp nag euh, ma am rek ay di nuyu kilifay aada yeeg ak kilifay diine yi nga xam ne ñu ngi ci Bambey ñu ñu am ci ay wëlëre ña nga xamante ni bii ñu ngi ñuy ñaanal ba pare di rafetlu initiative bi ñu am ak engagement bi ñu am ci dëkk bi. Euh, comme nous avons nak projet bu nga xamanteni projet la parce que c'est euh, ay nit ñi nga xamanteni bay ay doomi gis euh, bi fi parce que un xol 8 mois ci parce que ñu bambay lañ am bambay lañ se fi lañ maggé fi lañ yaro suñu njabot fi lañ né suñu wajur fi lañ né kon nak buñu démé ba gis sécurité parce que déjà ñàkk sécurité foofu la mën a yem ñun nag dañu dox ak suñu tànk wër ci suñu DV bi yëpp wër Bambey gi yëpp gis ni Bambey lëndëm ñu xam ne lii jaaduwut ci doomi dëkk bi te dëkk ci dëkk bi màggee ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi am nañu yàlla dimbalee li ñu yàlla dimbalee nag ñu ne suñu premier acte daan nañ def sax ay mbir mën naa am yu nëbb ya nga xamante ni nit ñi daaw ñu ko xam mais mën naa am lamp lamp lamp lampadaire yi tey moo yóbbu mouvement bi fenn fi parce que bu ñu waxantee dëgg dañ ci sante yalla parce que ñoko jëk njëkk initier ñoo xalaat ñoko jëk def ba tey natango ku nekk yaangi jënd ay lampadaire di dem di monter ji to lool sante yalla la parce que lool ci lu defar manam ci li defar tay ba bambay tay am am am am manam tay lerange loolu ci la parce que mëno ne sécurité ta waxo éclairage public nak nak moo waraloon ñu dem jënd ay euh, lampadaire yi lu am solo la ci dëkk bi moko waxal bopam ñun waxuñu ko parce que man deglu na ko daf ko rafetlu ne la nga xamanteni bi tay population Bambey ñi ci gis seen bop mais bala ñu koo defati ñom nañ ñu bind jagam nak mom lool la wax te mom non la gisee te moy meeru dekk bi dañ ko koy nangul kon euh projet bi luy continuer ci ciy parce que gis nañ ku nekk yaangi jëndi lampadaire léegi di daw di dem ci quartier yi di monter comme ñun ñun nak wax deug ci yalla Bambey mo ñu ñor Bambey kessé nak mom mo ñu ñor mouvement bi politique lu néew la ci même bu élection passée du té mouvement bi dañ ko bëgg yor téye ko ba kérok suñu sët ñew relever les défis continuer mouvement bi lool la bëgg wa waa Bambey gépp xam ko ci lool la bëggone a indil ay léram monsieur le maire nag li wax dañ koy rafetlu mais du té dinañ ko bind ben dinañ ko bind ben courrier euh, wan ko ne kaw ñun paré nañ pour continuer suñu projet su féké mën nañu mën nañu ci dox jox ndigal ñu continuer su fekkee it leneen def ci amit dinañ ñëw delloo dinañ ñëwaat fii ñu toogoon waxaat askan wi mbir mi fan lañ ci tool loolu laa amoon ci lu ma ne naa ko leeral waa Bambey euh, di leen sant nag di leen gërëm di leen wax ne ñun ay doomi dëkk bi lañ Bambey rek la ñor te euh, ñu bàyyi euh, faxas maanaam maanaam di mbooloo mooy doole ñi nga xam ne tey dama koy wax di ko waxati ñi nga xam ne Bambey moo leen ñor Bambey moo leen gënal seen bopp ñoom ñëpp war nañ mën a def un bloc ku ci nekk indi sa contribution ci dëkk bi. ñi nga xam ne leer nañ ne ñii Bambey ñoru leen Bambey soxalu leen seen intérêt personnel moo leen fi baax dunde dëkk bi moom lañ fi nekkee mais dundaluñ dëkk bi ñu jéem a xool nuñ leen nu ñu nu ñu jéem a gérer ak ñoom tranquillement ne leen dem leen toog ñële ñi mën ñëw jël porter le flambeau yóbbu Bambey fu gën fi mu nekk. loolu laa amoon ci lu may jàllale comme message may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp ok nekk leen ci jàmm je vous remercie